soxal ne bu soxal ne sol ba jigéen sol ba jigéen sol ba jigéen jigéen jigéenu Sénégal jaaroo boppam aagañ aagañ aagañ doone daar sëñ ay umu saw woo soo fulo may mame umu dañ papa coona

Sénégal jarama jigéen jigéen la sëkk sama yaay woon naa la jigéen jigéen dëgg dëgg ñële daal woon naa ma ca ñaay sëriñ Samba Thioné bala gay bar bar bar bar bar 8 mars bi moom sunu bés la ñun ñoo ko moom ndax nee nañ euh, jigéen mooy defar société jigéen mooy yàq société waaw kon nag euh, di ñaan yàlla mu ay huit mars yu bari bari bari bari si ñun waaw di gërëm ñëpp nag di gërëm xale yi parce que sama samay doom samay rakk rek ñoo fi nekk di leen gërëm ndax man tata rek lañ may woowee ndax nag euh, maa ngi bëgg a yàgg nag maa ngi bëgg a yàgg wax dëgg waaw leen ñaanal rek ñu toog ba liggéey ba retraité yàlla mën na ko teg na ko teg incha allah waaw. macha allah yaay booy nga ne yow yaa yor section bi nga xamante ne moom la mariage lan ngay wax jigéen ñi nga xamante ne dañu nekk ci biir sëy mais utew ñu kayitu mariage toog rek ba bés ñëw te duñu xam fan la ñuy waaw ñooñu li di conseillé mooy nañ ñëw ut certificat de mariage. bu si am durée bu ëpp 6 mois nga ñëw ñu defal la kayit nga dem tribu nga dem tribunal moo gën parce que loo xamante ne la nga dund da koy am nga dee da koy am maar détaillé waaw ngon vaut nga ñëw def sa mariage benn yoon moo gën ngay dem ba toog divorcé ñëw bëgg soxla kayitu mariage doo ko am muy indil la problème boo xam ne kenn xamul fu mu kii te nag aussi góor ñi tam nañu dimbali xale jigéen ñi si defal mariage nañ koy jox mariage am coupure nañ ko koy jox waaye dañuy jël kayit yëpp denc ko bés bu safaan ba amee ñu téye seen kayit waaw ñu téye seen kayit ne duñ leen ko jox waaw loolu na dañuy ñaan yàlla rek euh, góor ñi jàppale ñu si jàppale si xale yi te xam ne ne ñoom ñooy seen yaay ñoom ñooy seen mag waaw loolu yàlla loolu rek laa doon ñaan si 8 mars bi. jigéen ñi nekk si bu baax jigéen ginnaaw Awa ak euh, madame Mbaye ñoo bu baax depuis ay années ñu ngi si ñuy mars di am mais lii mos bi am kon initiative bi aussi bi ñu ko amee waxtaan cee ñun seen i góor. officier d'état civil ak mbay ñaaw chef de service ñu bëgg a ne initiative bi ñoom seen ay jigéen lañ teg service bi aussi bariwul jigéen ñun góor il faut ñu accompagner leen pousse leen pour affaire bi mën a am kenn réussite bi mooy première fois bi ñu koy soo a def compte état civil kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom defal ñu at yi fii fekkaat yëpp incha allah ñu koy mën di gën a te muy gën a yaatu incha allah ginnaaw loolu ñu ngi wax si wàllu liggéey bi man section naissance laa nii mooy fi ñuy xale yi xale yi soog a juddu defe naa jamono yooyu ñëwoon naa seen télé bi foofu bu doon ko expliqué souvent tëngeej nit ñi dañu am problème pour déclarer seen doom ñu leen di xamal ne déclarer laaju ay xaalis ñu si bari da ngeen naan déclarer ñu naan yoruma xaalis moo dem déclarer jugement moo gën a métti dem tribunal perte temps nañuy ñëw di déclarer seen i doom à temps suñu toogee ba affaire bi dépassé un an ngay dem jugement tribunal di baagante dama ko ñëw bëgg a yóbbu ay xale bi bëgg a yóbbu ay témoin day métti nañuy ñëw di teel a def déclaration biir xale bi su juddoo rek danga may nan la at waaye da nga ko war a gaaw ci biir weer yi ñu juddoo papier bi ñu la jox hôpital nga boole ko ak sa carte d'identité ak carte d'identité yaayu xale bi nga ñëw teel ko déclaré bu wàcc la loolu la ñuy lancé borom kër yi nekk si tëngéej ñuy gaaw di déclaré seen i doom parce que tribunal trop dafa bari ay xale yoo xam ne dañuy dem ba war a def examen te jotuñu woon am prime ñu ngi leen di ñaax daal ci loolu waaw wasalaam loolu laa merci beaucoup mu doon loo xamante ne témoignage la donc tey bu ñu fekkee mag ñi ci seen biir ci état si yow ak yéen a ay xale doon ay bëgg ngeen am taxawaay boo xamante ne macha allah lan ngay di kontaan je pense ne man bi mooy sama première édition. bu fekkee dina dara ñu ñaan yàlla ñu euh, ñu koy fekk ah, bii ko maire yi wax nañ rek moom mu naay suñu. macha allah ñun amuñu daal luñ siy teg. kontaan leer na Adja madame Niang. maa tegal nii Adja yéen ko moom Fatou génn génn moom bés bi. waaw kon wane ko ma wane ko Fatou waaw. kontaan nañu. macha allah ayca. waaw maa ngi nuyu ñëpp vraiment. présent ñëpp bu baax. Soda Ndiaye Soda. dañoo waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ñëpp vraiment di ziare bu baax di ziare suñu suñu góor vraiment jàpp nañu ci bu baax di ñaan yàlla lii rek bañ a bañ a dàkk ànd bu jot ak yàlla jàppale ñu suturaal ñu bañ ko fii fekkee ko si jàmm ak salaam di ko def ay année yu bëree bëri wax jigéen ñi ci biir kër yi te amuñu taxawaay surtout seen njaboot ak jamono bi fi mu toll waaw xanaa di wax rek ne jigéen ñooñu vraiment ñu ngi si erreur ñu góorgóorlu ndax njaboot moom parce que la ko yàlla xasee ba jox danga see war a def lépp loo si mën waaw commencé par def ko déclaration comme ni ko Bamba waxee toppatoo xale yi toppatoo seen jàng toppatoo seen avenir parce que xale si baaxee rek société bi baax na avenir yëpp day daal di jàll yoon macha allah. di ñaan yàlla nag 8 mars bi yàlla na fekkee at yu bare bare. at yu bare bare bare ndax dara ñu yëngatu. kontaan nañ nag di ñaax suñu mbokk jigéen yi ñu gën a góorgóorlu góorgóorlu di déclaré xale yi à temps xale bi si judd rek nga daw dem déclaré ji ko pour bañ a indi benn complication comme ni ko madame Cissé waxee. waa di di di souhaité daal euh, euh, bonne bonne fête à à tous les mamans. di souhaité bonne fête à à tous les mamans.